mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibéer gi di dalal nday Marème Sarr di candidat ca mairie bu Lambaye naka noonu sax yor wàllu mission bi ca ministère bu finance ak budget yor na sax yeneen ni responsabilité xam naa dinañ si dellu ci waxtaan bi ponk yi ñu war a waxtaanee bokk na si élection locale yi ci weeru janvier atum 2022 naka noonu sax ambition yi am ak programme bi ci boobu boobile mairie te Cheikh Ndiaye euh, jiite ko ak yeneen i poñ dinañ ko faram fàcce ci émission bi ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo ñoo ngi leen di nuy du lu ànd bi Ndeye Marème Sarr ñoo ngi lay nuy di la dalal jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5. Mass maa ngi lay fay bu baax a baax. Mhm. di nuyu waa Rewmi FM yëpp. Mhm. di leen remercier ci opportunité bi ngeen ma jox. Mhm. pour mu mën a ñëw waxtaanee lu. lu war lu aaju ci commune u Lambaye mhm. di remercier sama copine bi nga xamante ne moo ma accompagner muy ma sœur Mariam Taban mhm. mu nekk euh, sama compagnon de guerre comme ni ma ko mën a waxee mhm. nekk sama xarit nekk sama lépp wala maa commencé faaw ma tijjee foofu bu remercier mel ni mbëri nuyoo ba pare nag <laughs> euh, di nuyu Sénégal di nuyu diaspora bi. Mhm. di beral nuyoo sama commune muy la commune de Lambaye. Mhm. di leen wax que ne seen doom. Mhm. Ndeye Mariam Sarr. tey mooy ñëw di jàkkaarloo ak yéen. di jàkkaarloo ak monde entier. di fas yéenee waxtaanee li mu yéene ak li muy mbëbët. ci commune bi pour émerger carrément la commune de mbay jërëjëf Ndeye Marème Sarr émission bi comme à l'accoutumée ni ñu koy faral di defee dañ lay bàyyi nga présenté Lambaye fan la faree ci Sénégal. Lambaye mi ngi bokk ci région de Diourbel. Mhm. dans le département de Bambey. Mhm. Lambaye mi ngi nekk chef lieu d' arrondissement. Mhm. nekk quatre communes muy Lambaye Réfane. Mhm. gaawaan et la commune de Ngogom mhm. Lambaye ci histoire Sénégal kenn duutu ko présenté mhm. ndax yaakaar naa soo nee Lambaye rek ñëpp xam fan mooy Lambaye ñu def ay jaloore ci côté histoire def ay jaloore ci côté muridisme ndax ku wax Lambaye rek wax Cheikh Aliou Diouf Lambaye ku wax Lambaye wax Cheikh Babacar Thiargane ku wax Lambaye wax Cheikh Momar Mané Mbaye ku ne xam ne ne ñooñu seexi Serigne Touba lañ def lu rëy rëy ci yoonu l'islam kon kenn mënul wax Lambaye ma population ba fay yeewoo ci environ ñaar lañ toll. ñu ngi ci ay 37000. Mhm. jëm kaw. mën nañu wax ni kon Lambaye commune bu mag la. commune bu mag la. Mhm. mooy xool ci département Bambey commune yu ko ci ëpp bariwul. Mhm. Lambaye mën naa ne soo ko amee rek sa xel day dal. dans le département de bokk ci département bu euh, Bambey. ñu ko war a waxtaanee nga am xemmemteefu jiite boobile sax. Euh, Euh, localité ci élection locale yi ci janvier 2022 laataa ñu dugg si élection locale yi ñu ñëw ci ba euh, ci Lambaye fare ca Bambey d'abord lan mooy lan mooy difficulté yi foofu noonu ca Lambaye ndax gis nañ ni localité yi fasantikoo ci réewum Sénégal dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ban jukki nga ñu mën a teg ci taabul bi ñu xam ni Lambaye mii ñu ngi jànkonteel ay jafe waaw mon frère euh, question boobu dama la ciy remercier ndax nekk na question bu ma neex. Mhm. ndax Lambaye euh, ku ko dégg dégg tur bi tur bi dafa dem fa sori. Mhm. mais boo ñëwee ci wàllu jumtukaay dafa bari yoo xam ne dafa sooxe. Mhm. ndax ku wax accessibilité. mooy yoon te ñun waa Lambaye dañoo problème yoon mhm. autoroute Ila Touba bi naam baax na lool ñu ci remercier le président de la république mhm. mais dafa gën a enclavé Lambaye parce mhm. que daf ñu tëj kon liñ mën a gën a soxla fi mu toll nii à Lambaye mooy ñu goudronnel ñu la route ndàngal ma Lambaye ndax li ñu gënoon ak li nga xamante ne moom la Lambaye gën a soxla mooy ñu amoon wàccukaay ci péage bi péage bi ak Lambaye sorewul dara mais dañu ñëw ba def pont bi kuppee ko foofu wutaluñ ñu wàccukaay kon nit ki su fekkee ne da ko xañ wàccukaay war nga ko mën a defaral yoon boo xam ne war na koo mën a pratiquer. Mhm. pour dem dagg autoroute bi. Mhm. bu ñu jógee ci wàll yoon bi. Euh, euh, laataa ñu léegi nañ ci wàllu beneen euh, pàcc ci wàllu infrastructure de base wax nga ko ci say kàddu nga ni Ila Touba moo jaar ca Lambaye ba tax na sax daanaka boobile commune enclavement la dafa ruqe pour nga dugg fa est-ce que par exemple état bu Sénégal ba muy def état ba muy defar Ila Touba est-ce que bàyyi woon na xel population bu Lambaye ci lool naam état du Sénégal buy buy def euh, euh, réalisation bu tol noonu. Mhm. naam dina bàyyi xel. Mhm. mais du mën a xam conséquences yi yëpp yi nga xamante ne mën na ko engendrer. non war na ko mën a xam ndax ko wax état bu Sénégal. no soo waxee état mooy bàyyi nañu xel bàyyi ñu xel mooy ñun bu ñu yégee ci illah tubaab bi suñu xol day sedd bu ñuy dem Touba ndax ñun ay murid sadix lañ. Mhm. mais mais au delà de ça de loolu conséquences yi nga xamante ne. moom lay indi ci population bi. Mhm. foofu la ñuy waxee. Mhm. parce que waroon nañoo xalaat defar passerelle yu gën a bëri. Mhm. waroon nañoo mën a xalaat defar wàccukaay yu gën a bëri. mais da def nañ ko. mais doyul. dañuy laaj ñu dolli ko. ñaata passerelle par exemple lañ fa def. parce que ñun ñi ngi ñi ngi amee. yéegukaay boo ñëwee ba xombal. Mhm. à xombal da ngay dem ba Bambey. est que diggante bi dafa diggante bi diggante bi sorewante ne. Mhm. li ñu gënaloon mooy ñu am wàccukaay ci pont bi. Mhm. nga xam ne ñun dañuy génn làmbaay rek yéeg péage bi. que bu ñuy dem ko bu ñuy ñëw. loolu moo ñu gënal. suñ demee ba li ñu gënal nag mënuñu ko am. am na loo xam ne mooy la fa sës. la sës mooy nañu ñu defalal la ndàngal ma làmbaay. mu nekk une vieille doléance. pour pour la commune. mu nekk problème boo xamante ne sonal na ñëpp. ndax sooy xool. route bi c' est impraticable. Mhm. da ngay fay kalandoo à cent francs mhm. pour jógee ndàngal ma ñëw làmbaay mhm. te booy xool jógee ndàngal ma dem bambay moo gën a accessible da ngay fay ay 200 francs parce que foofu dañoo am yoon mu won la impact bi yoon am mu won la ne la dëkk mënul développer sans mu mm-hmm. am yoon mm-hmm. kon ñi ngi lancé un appel au président de la république mm-hmm. di ko wax que ne na gestu population de Lambaye ndax Lambaye nag yaakaar naa euh, li ñu war warloog président nekk nañ ci ndax ñi ngi koy jàppale mu fay gagné ay élection suñu demee ba élection yi demee nu ñu demee du population Lambaye mais ne président xool aussi ki mu tegoon bopp commune bi. Mhm. moom la Lambaye sanctionné. Mhm. mais amuñu problème ak mhm. président de la république. là justement wax nga ko ci say kàddu Lambaye dafa am ay jafe-jafe ci wàllu jumtukaay mi yoon ci commune bi est-ce que euh, route yi fa nekk euh, est-ce que méngoo na ak euh, jamono. non méngoowul ak jamono parce que ay pist lañ am. te ku xam pist aussi pist dafay nekk loo xam ne bu demee ay deux ans trois ans. danga ko war a defaraat. pour mu nekkaat ci état. te defaraat boobu noonu li muy laaj. gisuñu vraiment un maire capable boo xamante ne day nekk ci commune bi di surmonter ndoo ak population bi problème yi nga xamante ne moo fa am ba man taxaw pour ñu réabilité piste yooyu. Mhm. wala pour man taxaw. tëgg ci taabal ji laaj li nga xam ne moom la population bi soxla maire bi am na doole pour defar yooyu la ndax gis nañu daawàllu infrastructure loolu compétence transférée waaw même su nekkee compétence transférée bu fekkee ne mënul mais mhm. war na mën a taxaw mu laaj mhm. ndax président Macky Sall li mu yor da koy joxe mhm. ndax foo xoolee yeneen dëkk yëpp yi ci ëpp jox na mais président mënul bàyyi ku laajul gis kiy laaj ci wetam ku laajul waxul dara day foog ne amoo benn problème. Mhm. te làmbaay fi mu toll ci population. Mhm. toll fa ci war a développer jëm ci kanam. Mhm. yoon boobu dafa nekk une nécessité. kon ñu ngi ko ci tàllalaat loxo bu baax a baax te yoon bi kese du problème mu làmbaay. yeneen jafe-jafe yi dinañ si dellu si waxtaan bi. kon bu ma comprender say waxtu say kàddu ngeen baal ma kon ci benn yoon bi képp ngeen am jafe-jafe ci wàllu tali wala am na yeneen tali yi nga xam ni war ngeen ko defaraat. maanaam amaguñu benn tali à làmbaay. ay piste lañ am. Mhm. piste yooyu nag bi nga xam ne moo ci gën a urgent. Mhm. mooy la route ma Malambaye. suñ ñu ko defalalee di ku la dig añ. Mhm. reer ndékki. bu la joxee ndékki sa xel dal. en attendant ñuy ñëw ci yeneen yi. mais mënuñu tëj ñu ak autoroute bi amuñu wàccukaay pour yéeg pour dem. mënuñu am aussi yoon mhm. pour génn mhm. dafay metti torop mhm. loolu moo tax ñuy insister ci li nga xamante ne mooy la route Ndàngal Malaxaan yoon boobu sax ba yàgg ngeen ko décrier di ko ñaawlu ci presse bi pour ñu defal leen ko alors mairie bi moom lan moo ci responsabilité am est-ce que teg na ci ay jéego ngir ñu mën a defar euh, tali yi nga jund say kàddu maanaam ñun maire yi dañuy wax sax ñun waa Lambaye amuñu maire déedéet waay que li tax ñu naan ñun amuñu maire maire boo xam ne bu population bi di souffrir doo ko gis doo ko dégg. maire boo xam ne bu population bi amee jafe-jafe ba war a wàcc ci tali bi taxaw di ñaxtu. Mhm. dafay contre la population. Mhm. su bañul sax jël téléphone am woo gendarme ne dem leen jàpp leen. Mhm. ndax defoon nañ fi marche. bañ arrêté ci ay doomu làmbaay ba am na ñu ci def prison. ñooñu lu lu sababoon boobu la manifestation. parce que boobu ñu ngi doon def manifestation pour am yoon. yoon bi rek moo ñu soxal. daf ñoo soxal à ce dañoo prêt pour tout pour ñu mën koo am te bañ koy def bañ jàpp ci ay doomu làmbaay moom la ko waroon taxawaayam mooy ñëwoon taxaw assister ñu bu amee ñu am jafe-jafe mu def le tout pour ñu génn fañ ne mais daf ñu doon gën a enfoncé kon kooku mi ñuy wax ne làmbaay dara ñoru ko fa kon kooku mënuñu konte sax ci moom pour am dara li ñu bëgg mooy le président Macky Sall na xam ne population bi nekk làmbaay dañoo am yaakaar ci moom population bi nekk làmbaay ñun dañoo gëm vision te vision bi bi mu teg moo tax ñu gëm ko ba ànd ak moom di liggéey kon na ñëw gën a gestuwaat population Lambaye ci seen jafe-jafe pour mu am faaw pour mu am saafara faaw nga seen euh, kàddu yi nga yëkkati foog ngeen jubal ko maire bi maire bi mën koy euh, mën koy jottali président Macky Sall ndax euh, daanaka wàllu liggéey ci wàllu commune lépp war interlocuteur lay doon di kàddu yi dañ koy yëkkati jox ko maire bi maire bi mën ko fasal ci président Macky Sall bu fekkee seeni i jafe-jafe ba ngeen fee indi saafara xam nga li tax ñun bi ki nga xam ne dafa dëkk ci dëkk xam la fa xew warul xaar population bi di ko jébbal dara pour mu dem ci mhm. président mhm. moom moo war a am taxawaay bu tooy ni xool lépp luy jafe-jafe mu fexe dem jàllale ko fu mu ko war a jàllale pour ay solution yi daar daar ñëw mhm. mais su fekkee deful loolu maire bu nekkul ci biir commune bi mu ngi dakaar gi tëdd ñëwul Lambaye xamul la fa xew man mii di wax ak yow démb laa fa jóge maa ngi jóge Lambaye ay une heure du matin mais euh, bëri na ci maire yi nekk euh, ci réewum Sénégal wala sax yu fasantikoo si réewum Sénégal ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen localité ñëw fii ci Dakar. loolu daanaka du moom képp. no non non non non loolu man je ne suis pas d'accord du tout. Mhm. doon naam ñëw Dakar mënul ñàkk waxuñu kenn doo ñëw Dakar. mais doo ñëw dakaar fàtte fa la fa la fal mhm. te ku fàtte la la fal la lay folli day yomb mhm. làmbaay ñoo pareetul pour sacrifier suñu ay commune mhm. pour ay maire yoo xamante ne nii dañuy ñëw dakaar gi toog fi jënd fi kër takk fi jabar tabax fi seen immeuble fàtte dëkk ba maire bu amul kër boo fanaan amoo néeg booy fanaan ci biir commune ba maire boo xamante ne nii sa yaay nekku fa sa papa nekku fa amoo fa jabar amoo fa doom bu situation population bi dund problème yëgoo ko qu'on la vérité ñun nag di làmbaay lañ am fa lañ juddoo fa lañ suñu lépp fa la nekk Mm-hmm. kon duutuñu seetaan làmbaay di nekk ci ay difficulté mm-hmm. dina jóg xeex dinañ jóg rayante pour la fa war a am am fa na dëkk ba war a doxee muy doxee noonu léegi foo xeex bi toll pour seen yoon bi ñu mën ko defar ñi ngi ci mm-hmm. di lancer appel rek te duñ ci sonn duñ ci tàyyi dem nañ ci suñu coordonnateur départemental muy le ministre Mor Ngom ñu koy saluer di ko nuyu de passage mu nekk nit koo xam ne nit ku baax la vraiment mi ngi def liggéey bu am solo ndax bépp commune bu am problème dina jóg pour saafaraal la dina jóg pour yeggalee la sa doléance waaye du ñaax bi ñu koy ñaax ak appel bi ñu koy def du ma sa doy mhm. lu ñu mën a taxawal ci affaire infrastructure bi mhm. naka def mhm. ndax xam nañ ne ku jege président de la république la xam nañ ne ku am yéene la aussi ci département Bambey xam nañ ne mi ngi def li mu mën lépp pour que Bambey émerger kon kooku mën nañoo am ci moom yaakaar gis nañ euh, gox yi yenn ci gox yi bu ñu amee jafe-jafe rawatina sa làmbaay yaa ngi koy lim si say kàddu moo am jafe-jafe ci wàllu jumtukaay muy yoon naka noonu Ila Touba bi ñëw gën leen a doggali kon certainement dina am ay conséquence maanaam jeexintal ci wàllu population bi. waa dina am jeexintal ci wàllu population bi ndax loolu dafay gën a wàññi économie bi. Mhm. parce que dëkk bu dem ak dikk bi yombul. Mhm. économie bi pour mu développer du mhm. yomb. parce que ñun suñuy activité principale. ci commerce la ak agriculture. élevage. Mhm. su fekkee ne commerce bi am nañ ay marché hebdomadaire ñii war a ñëw ci marché yi amuñ di am jafe-jafe pour agsi mhm. bu yàggee sax dañuy tayal dañuy toog. Mhm. kuy wax économie. Mhm. wax commerce. Mhm. ñun dañoo bëri ay commerçant. Mhm. soo ñëwee fii Dakar sax soo demee ci suñu pàkkee ay commercant ñoo fi nekk. soo ñëwee buntu Pikine ay doomu làmbaay rek ñoo fi nekk doon ay nit yu am jom nit yu nungoo liggéey nit yoo xam ne seen ñaq rek la ñuy dundee. duñu fen duñu tricher. kon ñun ku ne xam na ne commerce daf ñoo ñor. kon ku ñuy jàppale lu ñu yombalal dem beeg dikk bi. loolu da ngay jàppale commune làmbaay pour mu gën a mën a yokk économie junj nga ko say kàddu nga ni ko activité économique bi mooy wàllu commerce wàllu mbay mi ak uh, wàllu sàmm gi est-ce que uh, yooyee sax am na jeexintal ci wàllu dëkk bi maanaam ñiy def li ni mal am na ay retombées économiques. waa am na ay retombées économiques ndax ñi ngi bay. Mhm. ñi ngi bay ñun bay dundee lañ gëm parce que bañ nañ ba ne ay baykat ay mhm. bawal bawal. Mhm. dañuy bay di dundee. mais dañ ko war a gën a améliorer. Mhm. améliorer ko ci nan defar ay ferme ñun mhm. lañ prévoir. Mhm. bu ñu defaree ay ferme implanté ko ci biir commune bi. dina tax xele yi. gën a toog. Mm-hmm. gën a sawar mm-hmm. parce que booy xool exode rural dafa bari mm-hmm. mais nit boo koy téye aussi da koy téew ak dara xale bu ci jeune bu ci jàng ba sa jàng yàqu dakaar ngay ñëw boo ñëwee dakaar formation bi war doo ko am commerce ngay dem def su fekkee ne dañ leen a bëgg il faut ñu créer dara ci dëkk bi lu leen téye tabax fa ay centre de formation yoo xamante ne dañuy former suñu jeunes yi ci différents domaines yi ba nga xamante ne dinañ mën a exercer wu foofu di gagner seen vie te du jar ñuy ñëw ba Dakar war nañoo defar le tout xam ne li ñuy dundee ñun dañ koy bay mhm. ba di ko fa jëlee di ko exporter di ko yóbbu feneen mhm. mais ku wax exportation te amoo yoon aussi daf lay poser problème mhm. kon loolu moo tax à chaque fois rek tout tourne autour de la kon ñuy yëngu ci wàllu mbay mi ak euh, sàmm gi ak euh, mairie bi amul benn par exemple bërëb yi nga xam ne dañ leen koy jagleel ñu mën fa amal seen i activité waaw fi mu toll moom seen i activité ci marché hebdomadaire yi rek lañ koy def dañuy def chaque jeudi ñu dem làmbaay yeneen jours yi ñu dem ci yeneen communes mhm. di di jaayante di jëndante mhm. bu ñuy dem élevage bi moo fay dox ku ci nekk li nga yor ci jur yi da nga koy yóbbu mhm. jaay jënd ki andi Euh, légume am andi légume am jaay jënd ki andi leneen andi leneen ñu jaay jënd mais lu formel maanaam ay bërëb yoo xam ne mais lu formel ay bërëb yoo xam ne boo gisee ñu wax ci programme mooy ay marché moderne lañ war a tabax mhm. marché moderne yoo xam ne dina nekk un lieu confortable mhm. dina nekk un lieu attirant boo xamante ne ñi nga xamante ne dañuy ñëw di def jënd ak jaay non seulement dinañ gën a sawar mais investisseurs investisseurs yi aussi mhm. dañuy gën a sawar pour ñu investir ci wàllu marché yi nag lan mooy tolluwaay bi ca Lambaye est-ce que am ngeen ay marché yoo xamante ni day dafa méngoo ak euh, jamono commerçant yi mën see ji seen bopp. non non non amuñu benn marché boo xam ne dafa méngoo ak jamono parce que. depuis ma judd amul dara. depuis ma juddu depuis ma juddu marché ba ma fa fekk loolu moo fa nekk te marché ba amul lenn loo mën a wax ne lii vraiment. lu tax ñu naan marché la. Mhm. kon li ñuy njëkk a def mooy bu ñu nekk yoree commune bi mooy tabax un marché moderne. Mhm. comme il le defar ay chambre froid ba mhm. mën di am li ñuy soxla. ci ay jën ak li ñuy soxla ci ci fruits de mer li ñuy mm-hmm. soxla ci yàpp ak lépp mm-hmm. parce que boo amul fooy conserver aussi yenn produits yi mënoo ko mënoo ko yóbbu ci tàngaay bi noonu mm-hmm. dafa yàqu te kuy investir aussi day xalaat loolu moo tax pour ñu am yenn yi dëgg-dëgg faaw ñu def un marché moderne kon seen marché yi dafa xayadi dafa xayadi du du du saboté nag mais réel réellement loolu moo fa am xañ na nag li tax mu mel nii mooy mairie bi da ci am part de responsabilité parce que nit buñ la joxee commune nga toog fa cinq ba sa cinq ans jeex nga delluwaat ci yeneen deux ans waroon ngaa mën a xool lii jafe-jafe askan wi nga am loo ci def mhm. même bu dee benn pas sax ñu ne pas bi franchir na ko mhm. mais amul lu mu jëm ci par exemple am na ay koppar yoo xamante ni mën na ko fa jël maanaam ay recette budgétaire pour mën a liggéey Lambaye ndax ko am ay budget cent millions mhm. cent millions tuuti na ci commune de bu bu yemuñu foofu cent millions est-ce que mën na liggéey marché bu moderne mais xanaa nit kay bu fekkee ne dangaa ñëw di laaj commune ban jox la ko war ngaa mën a am partenaire boo xamante ne da lay jàppale pour nga liggéeyal dara dëkk amoo partenaire bu la mën a jàppale nga liggéey dara kon kooku yow pen perdue la nga doon laaj mhm. commune jàmbur mhm. nit budget du moom mooy liggéey commune yëpp mhm. budget da lay jàppale pour nga liggéey mais partenaires yi ngay am ak euh, fonds d'appui yi ngay am loolu moo lay permettre nga tabax ay infrastructure digne de son nom ci biir commune bi mu mën a indi yokkute bu baax a baax ci biir commune bi mais mairie boo xam ne tey jii boo ko laajoon lan mooy bilan danaa la ay douche laa fi def ay miire naa bi def naa ay clim ci bureau yi mais loolu est-ce que est-ce loolu c'est un bilan pour un maire du loolu la waa Lambaye doon xaar ci moom li liñ doon xaar ci moom mooy yaakaar yi waa Lambaye da koo tas mhm. tas yaakaar nag mënul weesu askanu la mu wóolu la woteel la à quatre-vingt-dix pour cent mhm. nga ñëw toog fi ba jóge fi te mënoo ñoo tegal benn bilan. Ah, bu dee par exemple yaakaaru làmbaayu Dakar tas lépp dina leer ci élection locale yi ci weeru janvier. atum 2022 moom xam na ko moom xam na ko. Mhm, lépp dina leer addu ci leneen muy wàllu uh, ndox mi. seetlu nañ ña fare ca Bawol ñoom li ñuy jànkonteel ci jafe-jafe ci wàllu ndox dafa bëri ndax benn entreprise moo fa ne ñu duppee ko Aquatech mhm. ñoom nag daanaka euh, daanaka dootuñ jaaroo taal ndax dañuy amal ay manifestation ni boobu la sax entreprise lépp li mu waroon def mhm. defewu ko ba daanaka li ngeen di jànkonteel ay jafe-jafe ci ndox dafa bëri loolu merci beaucoup mon frère euh, loolu yaakaar naa képp kuy xool actualité yaa ngi gis làmbaay Mm-hmm. ak seen yëngutu ak seen marche ak mm-hmm. seen point de presque partout mm-hmm. contre Aquatech parce que Aquatech dafa nekk benn société privée boo xamante ne il est incompétent ñëw pour exploiter la population te population bu parewul pour accepter loolu ndax ñun bu ñuy wax modèle de forage làmbaay mexe ceeb suñuy forage dañ ci bokk ñun dañu yor forage jël gestion bi dénk ko doomi dëkk bi ñu ciy liggéey liggéey bu am solo di verser xaalis bu bëri à la trésor ci mhm. seen kees ba am ay millions et millions des millions bu ñu demee ba naan forage am na plus de quatre euh, quarante millions mhm. wala forage mi ngi denc seize millions wala forage mi ngi denc onze millions en caisse kon xam nga forage boobu mi ngi liggéey mhm. kon su ñu xëyee xëy ñu indil ñu benn société privée mu tudd ak Aquatech kooku ñëw andil ñu benn feuille de tegal ñu contrat boo xamante ne amul lenn loo xamante ne respecté na ko ci Mm-hmm. ban jox ko ndox mi mu ñëw di souffrir loo population bi mm-hmm. ak waa teg li mu ñu njëkk a tooñee ñoo waxoon day def assainissement ci ci ci réseau yi mais bu mu ñëwee loolu defu ci dara mm-hmm. li population bi doon jéemal seen bopp sax di raxasal seen bopp moom fekk ko ci moom li ko yitteel mooy ñëw def recouvrement jël xaalis bi dem yóbbu su ñu amee PAM li gën a metti mooy da doon wax ci contrat bi kan bu ñu amee panne day ñëw assister ñu andil ñu ay siteer citerne suñu amee panne di leen woo du ñu sax jël mhm. ñuy nekk ci jafe-jafe yu metti ba ñun bon volonté yi ñooy jóg ku ci nekk dugg foo mën a dugg woo koo mën a woo génnee sa xaalis pour jàppale mhm. askan bi mhm. mu nekk situation yu metti yoo xam ne Aquatech mi ngi koy def ñun lenn rek lañ soxla que Aquatech dégagé mettre nañ en place benn plateforme boo xam ne mooy Aquatech dégage bu Lambaye. léegi moom bu fa jógee léegi lan lan ba kan ban benn. delloo waat gestion bi à la population. soxla yéen naka ngeen di mën a indee ndox par exemple. ndox ndox mi actuellement nangu nañ ko ci Aquatech. Mhm. population bi ñoo ko ñoo teg. benn benn benn benn benn association boo xamante ne nii dañoo jël l'ensemble des village yi nga xam ne ñoo ngi utiliser ci forage bi les quatorze village mhm. ñu dem ci dans chaque village ñu jël fa ay représentants mhm. l'ensemble des représentants ñoo dajee créer benn bureau mhm. bureau boobu la ñu dénk ndox mi est que loolu bureau boobu loolu seen compétence la si parce que avant Aquatech AGEFOR yi doon yor ko xam xam ko ci wàllu ndox mais yéen seen comité boobu wala sax seen association boobu ngeen taxawal. ñun AGEFOR lañ ma a liggéeyee. Mhm. bañ ko ba bañ leen bañ yoree AGEFOR yi. Mhm. population bi ñoo daje mhm. teg teg. teg teg comité de gestion mhm. comité de gestion boobu di doxal ba li fi nekk ci kees gi ñoo ko fi def mhm. kon bu Aquatech ñëwee loolu yëpp ñu ñàkk ko mhm. ñu xeexaat pour revenir at comité de gestion yi comité de gestion yooyu ñu teg tey ñoo tax yeneen dëkk yi di am ndox parce que Lambaye fi ma dëkk mooy centre bi mais dafa am ay village environnante yoo xam ne ñi ngi ci côté bi li ci mel ni ay mbal bi ay nguy ay tuguj ñaxam dañuy am difficulté ndax pression bi moo dul yéeg ndekete forage bi mosul pan mhm. mais Aquatech ñoom ñooy économise carburant mhm. pour wàññi teel a fay forage bi ba du joxe alimenter li li population bi soxla pour que ndox mu jote foofu ñu mhm. ñuy gëmloo ko ne forage bi dafa paan mais bi population bi ñëwee nu ko bi ci seen loxo gis nañ ne li ñu doon wax dara du ci dëgg léegi am na amélioration ba ngeen ko nangoo ba léegi am na amélioration bu baax a baax parce que ndox mi ngi dem ci village yëpp amatul kenn kuy jooy damaa ñàkk ndox. Mhm. salle de bain sax da nga fay dugg say sas léegi day am ndox. ah kon mën nañu wax le problème est résolu. actuellement à Lambaye loolu moo tax ñuy continuer di xeex. pour le non retour de l'Aquatech dans notre commune te bañuñu ci dara. kon kay yéen dàq ngeen ko ba pare kay jaratul ngeen. mais chaque jour mi ngi tànte. Mhm. chaque jour mi ngi ñëwaat chaque ngi def le tu pour ñëwaat ci commune bi. Mhm. te ñun ñoo ko du nangu. Mhm. duñ ko nangu parce que arrangé wuñu ci wàllu politique gu état bi jëmale ko si ndox bi gis nañ état bu Sénégal mu ngi ciy teg ay jéego lu mel ni Kër Momar Sarr mu ngi euh, xotte ay taux ndox bi mën a mate fii si réewum Sénégal jafe-jafe yi wàllu ndox nag du à l'intérieur du pays seulement ndax Dakar fii sax dañuy jànkoonteel li ni mel. est-ce que politique état bi ci wàllu ndox yéen yéen a ngi ciy seen bopp. waa politique état bi ci wàllu ndox dañ leen ci félicité parce que ñi ngi def ay jéego yu ama am solo. Mm-hmm. boo doon dégg ñàkk ndox yaa ngi ko doon dégg au niveau de mais monde rural bi daawuñu confronté à ces problèmes kon li nga xamante ne moo war a nekk bu nekkee problème bi monde rural bi ak ndox bu fa Aquatec jógee rek day jeex état nag mi ngi def ay jéego ngi Kër mi ngi mi ngi mi ngi yokk forage yi partout parce que ñun boo xoolee suñu commune état bi mu ñëwee ak PUDC. indi mm-hmm. nañu ay forage parce que amoon na ba léegi. Mm-hmm. ay dëkk yoo xam ne amuñu woon ndox. Mm-hmm. mais avec l'arrivée du président Macky Sall bi mu ñëwee lu mu njëkk def mooy xool fi amuloon ndox mu def fa ndox. xool fi amuloon courant mu def fa courant. loolu ci ban at la def li ni mel. ndax sànq yaa ngi junj say kàddu ni li ngeen di jàngateel ci ay jafe-jafe ndox dafa bëri euh, après nga tourné waat nga ni état bu Sénégal danga koy féliciter est-ce que say kàddu amul euh, lu mel ni paradoxe xaw la non non waxuma loolu du paradox paradoxe mooy wax une chose et son contraire. Mm-hmm. li ma wax mooy Lambaye dafa am ay jafe-jafe am ay jafe-jafe du président Macky Sall. Mm-hmm. am ay jafe-jafe jafe-jafe yi moo bare te président Macky Sall daf ñëw indil ay solution par rapport à ces problèmes. solution yi par exemple. bi ñu ñëwee 2014 bi ñu ñëwee jël commune bi. la indi solution yooyu. la yi parce que Lambaye. à deux mille vingt mille vingt et un gis nañu Lambaye mu ngi jànkoonteel ay jafe-jafe ndox. non non jafe-jafe ndox mooy problème ak waa teg mais maanaam commune boo xamante ne village boo xam ne mi ngi ci biir commune bi amul ndox amatu fa. Mhm. amoon nañ ko. mais bi mu ñëwee dañoo fexe ba forage wër fépp. Mhm. ba amatuñu benn jafe-jafe. Mhm. pour benn commune bu ñàkk ndox. problème bi ñu am ci ndox mi mooy ak Aquatec. Mm-hmm. te Aquatec c'est récent. ku ne mm-hmm. xam na ne Aquatec yàggul bi ko état dugalee ci ndox mi. Mm-hmm. mais dafa wone son incapacité. de gérer la gestion. loolu moo tax ñu bëgg ñu génne. mais du du du problème bi état dafa warul dafa taxawul la population wala daf ñu indilul ay forage état bu Sénégal parce que parce que lenn laa lay leeralal. ñun population de Lambaye. dañoo du du ndox kese. ndox mi mën nañ ne sant nañ ci yàlla côté ndox bi moo gënoon li nekk gën a normal ci population mm-hmm. Lambaye parce que village yëpp am nañ accès à l'eau potable mm-hmm. Mm-hmm. mais problème mu Lambaye électricité la woon électricité bi de Senghor Abdou Diouf Ablaye waat trois village ñoo amoon électricité à Lambaye léegi nag te ñi ngi woon ci cinquante deux villages plus quatre amoon léegi ak l'arrivée du président Macky am nañ de plus de quarante villages électrifiés léegi ñaata village ñoo nekk Lambaye am nañ cinquante deux villages plus quatre amul ñu ngi ci cinquante euh, quatre voire man cinquante cinq. léegi ñeent fukki villages yi ñoo am courant. ñëpp am nañ. Mhm. ëpp na mat na cinquante fi mu toll am courant. Mhm. fi mu toll nii max la lan la ñuy ñaan. Mhm. réhabiliter courant bi. dëkk yi amoon foofu. du problème mu président Macky Sall. Mhm. il faut que population bi comprendre problème bi problème mooy Macky dafay fekk ku amul mu andil la mais ki am ba pare su amee panne wala sa làmp lakk loolu liggéeyu meer la maire bi moo war a saytu courant bi ni muy doxee ci dëkk bi làmp yi lakk mu changé ko. defaraat li paan léegi nag <laughs> problème bi ñu am mooy boo duggee mexey mhm. am na courant mhm. nga dugg làmbaay am na courant mais soo fa demee noirceur da lay rey mhm. day lëndëm ba dangay ngay tiit lu waral éclairage public moo amul éclairage public bi boo gisee fii benn làmp bala nga koo gisati yàlla xam yii toj yi lakk maire bi nekk fa bay xam lu lëndëm ak lu leer mais maire bi fa nekkul war naa may adjoint ay conseillers municipaux adjoint mooy dangay ngay liggéey ak moom mu liggéey ak yow. Mhm. maire boo xamee ne dañ laa fal ci commune nga ñëw sa premier adjoint nga écarté ko teg ko nee kooku du nekk di la liggéeyal dara. Mhm. maire bi il a un problème. Mhm. problème am nag kenn mënul xam lan la. ndax dëkk boo leen bëggee am ci ñoom yërmande am na yenn yoo xam ne doo leen ko teg. ndax le minimum mooy fu courant amuloon nga indi ko fa looloo jafe. mais fu mu am ba pare nga fexe mu leer. loolu jafewul. yéen a ngi si émission gox bi ci rajo mi FM 97.5 ñuy dalal ndey Marème Sarr di candidate ca mairie bu Lambaye naka noonu bokk ci ministère bu finance ak budget te Abdoulaye Daouda euh, jiite ko bu ci kanamee dinañ ubbi bu mu jokkoo bi mën ngeen woote ci 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 nga bës mën ngeen dugg ci bu mu jokkoo bi woote ci 88 628 84 84 ngeen bës 1 88 ngeen bës bës 1 88 628 86 86 ngeen bës 1 dugg si bu mu jokkoo bi ngeen joxe seen xalaat ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM 97 point 5 addu ci leneen Ndeye Marème Sarr état bu Sénégal ak Lambaye ab au-delà de yan programme la état bu Sénégal euh, teg fële ca Lambaye yi nga xam ni seen commune bi bénéficié wu na ko. waaw benn ci PUDC bi. Mhm. ndax par bi mu ñëwee andil nañu ay forage mhm. bi mu ñëwee jigéen ñi nga xamante ne dañoo nekkoon dans dans la commune. Mm-hmm. amoon ay jafe-jafe ci wàllu ay wol. Mm-hmm. amoon ay jafe-jafe ci déplacé wu. di dem ci dëkk yi nga xam ne ñoo ne ci centre bi pour def euh, yenn préparation pour mën a togg. Mm-hmm. yaakaar naa am na ay machines yu bari. andi na ko fa ñu dote leen ko. état du Sénégal ñëw na andil ñu ay ambulance ndax ku xam làmbaay xam ne dëkku jafe-jafe la su may dugg ci ambulance nag li may njëkkee mooy féliciter la diaspora. Mm. les ressortissants de Lambaye yi nga xam ne dañoo nekk à l'étranger nekk ay nit yu am jom li naan picc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf mhm. bien vrai que ñi ngi à l'étranger mais seen xel mosul jóg ci Lambaye ñoom ñoo njëkk a xeex pour indi Lambaye ambulance mhm. ba nga xamante ne dina mën a yombal bu ñu amee malaat ñu mën koo transporter mhm. parce que dëkk su fekkee ne faj bi dafa am problème hôpital yi amuñu li ñu soxla yëpp pour téye fi malaat ku fa ñëw évacuer lañ lay def su fekkee ne amoo ambulance mënoo évacuer kenn jafe-jafe yi macha allah foofu. Mhm. mais bi doomu làmbaay góorgóorloo ba indi ambulance boobu état aussi ñëw ak programme boo xamante ne nii wóor na ko ne lii bu ko defee dina soulager population bi mu indi laat yeneen ñaari ambulance mhm. ñu ciy sant bu baax a baax le ministère. Mhm. de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. ci ci ci ci ci loolu nga xamante ne def na ko. ku ku wax ambulance wax wàllu wér gi yaram est que làmbaay am na ay jumtukaay ci wàllu wér-gu-yaram ay poste de santé ngeen am wala da am. hôpital bi nga xam ne méngoo ak ak jamono. waaw bu ñëwee ci wàllu santé li li ñuy njëkk a def ci ci domaine domaine domaine de la santé li ñuy njëkk def mooy lancer un appel au ministère. de la santé le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Mm -hmm. que Lambaye c'est un chef-lieu Lambaye mérite un centre de santé digne de son mhm. parce que Lambaye chef-lieu d'arrondissement ba léegi poste de santé la am. Mhm. te poste de santé yi dañ leen a war a équiper. Mhm. poste de santé yi dañ leen war a jàppale. ba keroog centre de santé di am xel man a dal mais su fekkee da nga def poste de santé boo xamante ne équipé wuñ ko normal jàppalewuñ leen defaraat ko ba mu baax. Mhm. jàppale leen ci médicament lu doy ña fay nekk dañuy sax sonn. Mhm. médecin boo fa yónni yónni. fu affecté. Mhm. day am jafe-jafe kon li ñuy ñaan mooy nañu defaral un centre de santé kon seen wala sax poste de santé poste de santé la ñu amul ay plateau médical. plateau médical yi dañ ko dafa war a dañu war a rénover. Mhm. rénové lambay mérite un centre de santé. Mhm. su bu ñu defee centre de santé bi à lambay ba pare boo gisee suñu programme ñu ciy insister mooy dañu prévoir centre de santé digne de son nom à mhm. lambay bu ñu paree ci centre de santé yi nag ñu dem équiper. les post de santé yi nga xamante ne mi ngi ci village mm. environnante yi uh-huh. te bu ñu jógee ci poste de santé yi aussi dañu war a dem équiper aussi les cases de santé mm. parce que case de santé yi ñu fa defar mm. dañuy am ay difficulté ci médicament dañuy am ay difficulté pour payer infirmière ba nga xamante moo fiy nekk ba lu ci bëri ci case de santé yooyu à day mujjee tëj te loolu dañ ci war a def travail boo xamante ne yooyu dootuñu arrivé. est que par exemple seen poste de santé yi mën na couvrir population bi est-ce que ñenn yi bu ñu amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram mën nañ fa toog fajoo wala dañ leen di transférer. ñi ci ëpp dañ leen di transférer. am na ñu fay fajoo mais bu fekkee cas bu compliqué dañ koy dañ lay transférer. Mhm. lool moo tax ñu bëgg centre de santé. parce que mhm. population bu toll ni Lambaye ak la fa nekk. mérite un centre de santé. Mhm. très sincèrement. ndax centre de bi moo mën a tax. hôpital bi répondre aux norme population bi mën na ñëw aussi am satisfaction. Mhm. mais su fekkee soo feebaree boo waree def rajo ñu ne la acca demal soo waree def écho ñu ne la génnal dem soo waree def leneen ak leneen ñu ne la demal defe ko feneen. Mhm. bu yàggee danga naan je préfère ma dem foofa ma def li may def lépp ma ñëwaat. Mhm. te loolu day rey day rey dëkk. day rey hôpital bi ñun amuñu lu dul làmbaay bëgguñu lu dul làmbaay dund kon suñu sañan dañuy am lu ñu soxla pour hmm. toog dund fa aisément et librement léegi loolu lan mooy ci responsabilité maire bi est que def na ci ay jéego nee naa la ñun suñu responsabilité maire suñu toogee di di ko wax émission bi yëpp dañ koy def ci moom hmm. te moo nekk nit koo xam ne daanaka jërul sax yàq ay salive parce que nit koo xam ne xooloo sa population lan la soxla hmm. xooloo yan solution nga war a dem wuti fii li fi yor nekk lépp état ko yor. Mhm. kon soo amee sens nga bokk ci parti au pouvoir nga am sens président Macky Sall xam la responsabiliser. Mhm. kon loo soxla te amoo ko dafa fekk da nga kaa lijjanti. yooyu ak maire bi yéen a bokk parti. ko coalition ba pare doo leen jaaroo taal. ñoo bokk benn parti. Mhm. bokk coalition. ma di ko jàppale man mi ngay waxal nii maa nekk la coordonnatrice de la jeunesse républicaine dans la commune. Mm. mais bokk nit parti bokk ak nit commune. Mm-hmm. taxul aussi bu fekkee ne la ko war ci commune ba defu ko nga di ko soutenir continuer. Mm. man fu mu mas ku mas sa dégg turu Cheikh Ndiaye dégg nga turu Ndeye Marème ci côté ba mais nit ki boo koy défendre aussi danga koy défendre. ci li nga nekkul toog bi nga bëgg rek moo tax. non pas toog bi toog bi moo mujj. CICES mm. fii ñoo fi nekk on a cheminé six ans. Mm-hmm. au CICES ñu nekk fa mais nit. da ngay bëgg sa dëkk mhm. nit doo complexé mhm. yow boo gisee jàmbur nga mën a def ci moom loo xamante ne pare woo pour def ko fa nga dëkk mhm. loolu dama naan complexé la nit nga toog am possibilité toog ak ñi nga xamante ne ñoo yor li ngay laaj te laajoo leen ko yóbbu ko sa dëkk loolu bañ sa dëkk la te loolu la def maanaam bu fekkoon dañu nekk oppose opposition damay wax ne moom amagul possibilité def lii def lii def lii kooku mënoo koo critiquer mais ki nekk parti au pouvoir boo soxlaa santé xam nga bureau ministère de la santé. Mm-hmm. au moins soo demee ministre bi xam na xam na yow yaay kan. Mm-hmm. war nga koo mën a soumettre doléance yi nga am. Mm-hmm. moom mu xool yenn solution la la ci war a ah. wutal. addu ci wàllu jàng ak jàngale ci wàllu éducation est-ce que Lambaye am na ay école wala ay abri provisoire moo am na ay école non non dépassé nañ niveau abri provisoire euh, ndax man soo ma laajee ci affaire école dama ciy sawar parce que dafa nekk domaine boo xam ne ren jii mën naa ne presque sama activité yëpp ci laa ko ci laa ko déroulé Lambaye ñu ngi ci quinze écoles quinze écoles dans la commune amul benn bu nekk ay abris provisoires mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla baax di sant le ministre de l' éducation di ci sant aussi le président de la république parce que bi làmbaay demee ba doomu làmbaay yu ci bëri seen njàng da doon yàqu mhm. soo amee CFA euh, ñëw am BFEM mhm. da ngay am problème pour ñëw dakaar am foo nekk. parce mm. que la vie à Dakar c'est pas facile. Mm-hmm. c'est pas facile à tout le soo ñëwee Dakar bëgg foo nekk pour continuer euh, def sa bac. Mm. foofu la sa jàng di yàqoo. léegi Lambaye am nañ lycée am nañ lycée sant yàlla alhamdulilah. di ci mm. remercier le président de la république bu baax a baax a baax parce que dafa nekkoon doléance boo xam ne ñun ñëpp dañ ko doon ñaxtu fu ñu toll ku nekk yaa ngi ciy wax. Mm-hmm. doomu Lambaye ku ci nekk yaa ngi ciy jëf ba am nañ ko l'année passée. Mm-hmm. kon loolu dañ ciy sant bu baax a baax li ci des nag mooy. li ñuy laaj mooy un lycée moderne. Mhm. lycée moderne lañ bëgg ñu tabaxal ñu ko mu ñu équiper ko mu am ay salle informatique am lépp loo xam ne ndaw bi da koy soxla. Mhm. pour encadrement am. Mhm. parce que technologie moo toll ci Sénégal foo xamante ne nit ki boo koy jàngal di ko encadrer jàngal ko ko. mooy tax bu génnee du am jafe-jafe. ndax dëkk bi monde bi dafa avancé actuellement. leneen li nga xamante ne mooy yeneen école yi école primaire yi. Euh, gàcce ngaalaama ñi ngi am ay résultats yu exemplaires. Mhm. may remercier les CODEC les dire l' ensemble des directeurs yi nga xamante ne ñoo fa nekk parce que damay liggéey ak ñoom ci lu bëri ci éducation ñu ma koy faciliter di ma ci jàppale mën naa cee tudd kenn muy euh, directeur Samba Ngom mhm. le directeur de l' de Mboubane mhm. mu nekk koo xam ne nii vraiment nit ku exemplaire la nit ku bëgg jàng la nit ku bëgg a jàppale fu mu toll mi ngi naan day mareem tout le temps mi ngi may conseillé que nañ gën a jàppale école bi euh, récemment laa organisé benn journée journée boo xamante ne ni dama jël l'ensemble des quinze école mhm. jël dans sa classe les dix première primé leen mhm. def ko journée bu mag ànd ko ak ñoom vraiment ci ngay xamee dëgg-dëgg école bi pour nga jàpp leen faaw nga jege leen ci ngay xamee seen ay problème mhm. école yi il faut que ñu renforcer ñeneen ji ay salle de classe parce que am na école yoo xam ne bi ñu leen tegee yàggul ñooñu ñoo ay salle de classe am na école yoo xamante ne nii il faut que ñu jàppale leen équiper ko. Mhm. di leen jàppale aussi ci fourniture scolaire. du fa mhm. doy parce que da ngay gis benn xale boo xamante ne ay parents am loxoom jotuñu seen gannaaw. Mhm. mais kooku dafa mérité jàng comme ñëpp kooku suñu leen jàppalewul jàngam day yàqu. te tout temps a à l'éducation. loolu moo tax ñuy def le tout. pour di jàppale école yi pour xale yi di mën di jàng tranquillement mhm. bu ñu nee école nag fàttewuñu aussi la case des tout petits parce que xale boo koy encadré dès le bas âge nga koy commencé. Mhm. di ko teg ci yoon bu demee ci kaw du sonn. Mhm. case des tout petits ba fa nekk à chaque année man la ñuy marrainer la fête de d' année à chaque fois maa ngi dem di leen nemmeeku lépp lu ñu soxla lépp lu ma ci mën maa ngi koy def pour que xale yi. ñi leen di jàngal gën a sawar xale yi aussi gën a sawar pour jàng. muy lu am solo ci wàllu éducation bi mën ngeen a dugg ci buumu jokkoo bi woote ci 88 628 84 84 ngeen bës 1 88 628 85 85 ngeen bës 1 88 628 86 86 ngeen bës 1 laataa ñoo dugg ci élection locale yi ñu def taxaw seetlu ci bilan wu maire bu Lambaye. te kii di Cheikh Ndiaye jiite ko léegi bilan bi yow naka nga ko gisee. man dama naan amul bilan parce que maire lan ngay tuddee bilan mhm. maire boo xam ne boo ko taxawee naa ko looy bilan ay douze la lay wax ay douze mooy lan mhm. yàpp population Lambaye weesuwul ngay taxaw di jàkkaarloo ak ñoom naan j'ai fait des blocs sanitaires. moo ne de taxawal na foofu ab marché bu am solo fële ca Mexe ak ay euh, magasin ma magasin taxawalu ko. ak ay programme agricole. taxawalu ko. kan moo ko taxawal. Euh, lépp dama la koy détaillé. gis nga boo ñëwee mi ngi am benn magasin tudd Pafa. Mhm. ay femmes leaders. Mhm. ay femmes yoo xam ne ñu am jom. Mhm. ñu nangoo liggéey ñoo toog constitué seen GIE am ku leen accompagner ma nga dëkk ba Kaolack. Mhm. kooku xamul sax waa Lambaye. mais nit bu fekkee ne da ngay liggéey pour Sénégal doo def dispension. kooku moo ñëw encadrer femmes yi financer leen jox leen matériel yi ñu soxla yépp pour ñu liggéey. bi femmes yi liggéeyee. ba yàlla dogal ku xam bawal xam ne ñun ay baykat lañ xam nan lan mooy cere xam nan lan mooy sangal xam nañ lan mooy araw xam nan lan mooy sunguf xam nan lan la ñuy defaree laax mhm. maire di ci defal ay produits yu am solo mhm. bu foire jotee maire bi daana leen may place ci foire bi pour ñu ñëw exposé man mii maa leen daan encadrer ba jox leen stand bi installé leen mhm. macha allah ñuy def produit yu am solo mais dañoo dem ba seen produit yooyu amuñu fuñ ko def. Mhm. ki leen defaraloon projet bi ñëw financé leen 15 millions. Mhm. mais 15 millions kenn du tëb di ko jox jigéen da ko naan demal ci sa yi mhm. foofu la ñuy jaarale fonds yi. maire bi ñëw construire leen leen. maire bi moo leen waroon a joxel caution d'une montant de un million cinq cent mais soo joxee li nit un montant de un million cinq cent kooku ñëw versé la quinze millions ne la defaral benn magasin Pafa quinze millions yi ko ko joxee mu defar magasin bi ba ni may wax ak yow nungu ko defar mu yegg mu équiper ko normal inauguré ko. ah maire bi ci turu maire bi lañ wax moo ko defar. équipe municipale waaw parce que loolu day nax boppam. gis nga équipe municipale sooy wax da ngay wax li nga réaliser parce que man mii ñuy waxal dañoo war a xam ne man dama leen a miin lool ndax dama leen a jege te lu ci nekk rek xam naa fa mu jaar. ba ëgsi fi mu ëgsi mhm. kon la ñuy wax nañ ko xam bu baax ndax war boo leenee nee Ndeye rek ndax ñoo xam nañ ki ñu fi fekk mhm. parce que Ndeye Marème mooy la lionne de Lambaye kii dawul dara mhm. te lépp tout j'ai j'ai été témoin du début à la fin magasin boobu soo gisee ñoom ñu am ci gàcce am ci toroxtaange la leen waran defuñu ko nit bu la joxee quinze millions ne la liggéeyal soo liggéey ba pare dangaa war a organiser jour boo xam ne cérémonie lay nekk jigéen ñi mën a jaajëfal doomu Kaolack bi nga xam ne moo ñëwoon. Mhm. defaral jox leen taraanga boobu. Mhm. mais defu ko dafa toog toog toog amul lu mu réaliser amul lu mu def ci commune ba tout sama même pas deux mois li ma lay wax nii mu ñëw ne dafay defar benn espace public à Lambaye. Mhm. foofu soo fa demee ay jooy moo lay jàpp su fekkee daratu Lambaye mu ngi ci yow soo taxawee ci espace public bi Cheikh Ndiaye defar ay jooy moo lay jàpp. ñun dañoo nekkoon ci njaam nekkoon ci. saa saayir bu ba sëkk sëkk sëkk ku xam làmbaay loolu nga ko xamee mhm. ñetti jàmbaar jóg Cheikh Aliou baaba Babacar Thiergane sëñ maa ne Mbaye xeex ba jël làmbaay dugal ko ci diine xeex ba implanté làmbaay lan mooy taalibe mhm. ba waa làmbaay soppeeku ba ñëpp nekk taalibe mm-hmm. kon ñooñu boo leen di defaral pour impressionner leen boo defaree place publique lan nga fa war a njëkk a def mooy nga teg Cheikh Aliou Diouf Lambaye Cheikh Babacar Thiergane Cheikh Momar Mané Mbaye seen photo képp kuy doomu Lambaye suuf ñëwee xam ne Lambaye ñee ko jëlee ci lëndëm indi ko ci leer mm-hmm. mais waroo ñëw ne da ngay defar un centre public boo xam ne pour doomu Lambaye la jëlaatal ñu ña nga xamante ne ñoo fi nekkoon doon ay ay ceddo nga jëlaat seen image ñoo implanter ñu ko foofu. Mhm. loolu daf ñuy delloo gannaaw te làmbaay nag dafa taxaw pour avancer. muy lu am solo mën ngeen dugg ci buumu jokkoo bi woote ci 88 628 84 84 ngeen bës 1 88 628 85 85 ngeen bës 1 88 628 86 86 ngeen bës 1 àddu ci élection locale yi ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 yow nga nekk candidate à la mairie de Lambaye est-ce que mën nañu xam lan mooy ambition yi. waaye ñun suñu ambition mooy jëlee làmbaay fi mu nekk yóbbu ko fu sori. Mhm. parce que bu ñu naan bu ñuy wax naan euh, pays émergent. Mhm. commune émergent moo ci war a nekk. Mhm. mais làmbaay émergence am dafa des. dafa des parce que taxaw yi moo des. léegi nag pour émerger làmbaay dafa am foo xam ne fi nga war a jaar. pour émerger làmbaay dafa laaj ay projet yoo xam ne c'est à long terme. pour développer la am na ku nekk ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa bi noo def noo tudd ak fooy woote. ñun ziar bu wér sëñ bi. delloo ziar ah, mhm. noo tudd ak fooy woote. Euh, euh, mhm. mhm. ñoo ngi lay bàyyi nga participer ci émission bi. ziar bu bu wér. Euh, nekkagul maire de. <laughs> nga yëkkati kàddu gi tuuti. ah. ma ni nga yëkkati kàddu gu tuuti dafa suufe ah man man dégguma loo leen ah, a suufe mhm. ñoo ngi lay dégg allo ñoo ngi lay dégg bu baax. waaw ma ne ñu ngi nuyu suñu jigéen boobu. Mhm. suñu maire boobu. Mhm. Ndeye Marème Sarr. Ah, bi. man maa ngi dëkk maa ngi tudd suñu baak say dëkk pré euh, ci commune Lambaye. Ah, di ko wax ne mu gën a góorgóorlu rek. ci émission bi. Mm-hmm. Euh, lépp lu mu fi wax mën mën nañoo mën nañoo nekk le témoin quoi. Mm-hmm. Euh, parce que jàmbaar la aussi. Mm-hmm. dem na suñ ko jàppale président teg ko loxo rek yaakaar naa ko mun naa mbaay moom dina changé a a baax. nag biñ fi nekk di wax diw lii la def ak diw lii la mais ñun ñëpp dëkk Lambaye yëpp xam na dafa xew. lañ koy dund. lu jëm ci wàllu yoon bi ñu ko Ndeye Marème Sarr waxee noonu la parfaitement. dañ ko soxla trop. parce que yow mënoo jógee Dakar dem ba ndàngal ma fay à deux mille francs bëgg a jógee bëgg a jógee ndàngal ma dem à Lambaye fay lu gën a bëri loolu mm-hmm. loolu xel du ko nangu mm-hmm. loolu yëpp ñàkk yoon moo ko waral mm-hmm. euh, di ko wax ñu gën a góorgóorlu rek Lambaye moom soxla na ko bu baax uh-huh. waaw ñu président déggee rek nga xam ne làmbaay fu la ngay ma bu baax parce que mën na fa dara daal. Uh-huh. incha allah jërëjëf sëñ bi Mbacke. maa ngi lay remercier bu baax mon frère. Uh-huh. waaw kontaan naa baax ci participation bi. mën ngeen def ni moom participer ci émission bi wootee ci 88 628 84 84 ngeen bës 1 88 628 85 85 ngeen bës 1 88 628 86 86 ngeen bës 1 dugg si buumu jokkoo bi joxe seen euh, xalaat ci émission gox bi ñuy dalal Ndeye Marème Sarr ñu bàyyi la nga wéyal ci ambition yi. waaw euh, boo avant may wéyal ci sama ay ambition dañuy ñëwaat ci. li nga ma doon laaj léegi ma di ci développé ci wàllu magasin bi. bi ma paree bi ma bi ma paree bi ma paree ci magasin bi. Mhm. il faut nga may ma ma am lu ma leeral. Mhm. parce que ñun dañoo am sens ak le président Macky Sall. gis nga bi ñu ñëwee jël commune bi dañu am benn mine phosphate boo xamante ne. Mhm. ñu ngi ko implanté à lu fa mësul am c'est la première fois. mine bi pare pour accompagner la commune mine bi di ñu verser vingt cinq millions par année. mine bi pare pour defaral ñu ay case de santé dañu miiréer ay école mhm. mais versé nañu ay ay euh, ay vingt cinq millions trois ans mhm. xaalis boobu kenn xamul fan na dugg mhm. amul benn impact bu mu def ci population Lambaye xam nga loolu tamit kenn mënu koo mu ñaale nga ñëw ci foncier Lambaye ñu ngi caxat-caxatee suñu suuf caxat-caxate ba ci anam boo xamante ne jaarul yoon boo doon soxla terrain Lambaye da ngay dem trésor nga versé sa xaalis ñu jox la reçu nga ñëw déposer sa la mairie ñu bàyyi ba période hivernage bi passé ñu door a ñëw dagg terrain yi parce que ku ne xam ne ñun ay baykat la mhm. mais léegi da xool à n'importe quel moment ngay gis ñuy dagg suuf si mhm. da xool fu nekk ñu dagg ko te teguñu ko ci yoon te booy xool ñi bokk ci ay entourage am ñi ci ëpp ñii dañuy bénéficier wu à cinq à six terrain yu ñu tegul fenn mhm. kon loolu day jar bu ñu taxawee ñu ci ci ci ci rajo. Mm-hmm. ñu dénoncé ko ba waa Lambaye xam ne ñun li xew ñun xam nañ ko. Mm-hmm. su ma jógee ci loolu nag foofu laay tëjee parenthèse yu affaire maire man man li ma gëm mooy Lambaye amul maire. Mm-hmm. kooku moom lu ma gëm la. te lu am la te waa Lambaye sentiruñ ko fa. bu ma ñëwee nag ci projet yi nga xam ne moom laa am. ambition ci wàllu programme bi ci boppu mairie bu Lambaye. Mm. man bu ma ñëwee lii nenaa naa la doléance majeure bi ñu njëkk am mooy démarcher la route ndàngal ma làmbaay mais loolu su ma jógee ci loolu. mais loolu compétence transférée la. est-ce que di nga am doole pour def. li mel si si max la am doole pour def ko. ñi koy def te yor ko dañoo nekk ak ñoom. Mhm. parce que loolu état moo ko yor. Mhm. mais dangay dem dox. Mhm. wax bind jaar fi nga war a jaar pour loolu am. su fekkee nit dafa nekk maire. day nekk blocage. instant yi boo demee bind fenn ba loolu war a ñëw su agsee ci loxoom bañ ne la na maire bi signé da koy bloqué. Mhm. du signé kon loolu la nga doon liggéey lépp peine perdue lay nekk. Mhm. loolu moo tax ñu am yéene ñëw jëlal commune bi suñu bopp doxalal suñu bopp li ñu yéene Lambaye ñu defal leen ko. Mhm. li Lambaye mérite aussi mu am ko. Lambaye dafa nekk dëkk boo xam ne dafa mérité am li dëkk yépp am. électrification universelle. wax dëgg yàlla war naa mën a ne fu fa koo xamante ne ay année yaa ngi koy dund trois villages nga électrifié 40 villages électrifiés plus de 40 villages électrifiés li des war nañ kaa mën a continuer. Mhm. li nga xamante ne mooy compétence su maire mooy réhabiliter l' à Lambaye. Mhm. loolu état du ñëw duñu ko defal. Mhm. ñun ñoo war a ñëw teg programme boo xamante ne dafay am suivi. ñuy topp lamp yi di ko vérifier lu ci lakk ñu defaraat ko lu ci paan ñu dépanner ko wut ay électriciens ñuy def suivi bi ay doomu Lambaye ñu ngi fa nekk ay ingénieurs. domaine boo dugg ci doomu làmbaay boo demee wër ko ci làmbaay danga ko fay fekk. Mhm. ay doomu làmbaay ñoo fi nekk ay commerçant ay doomu làmbaay ñi ngi fi nekk ay ingénieur ay doomu làmbaay ñi ngi fi nekk yu yor domaine yëpp loo soxla boo ko interroger dugg biir làmbaay di nga ko fa génne. Mhm. kon ñuy am yenn jafe-jafe yi loolu dama naan maire bu incompétent kese moo ñu ko mën a yëgal suñu génnee ci li nga xamante ne mooy mooy mooy loolu mais construire ay forage parce que dafa am ay population yoo xam ne ñi ngi am jafe-jafe parce que forage bi nekk Lambaye quatorze village ñoo ko seq. Mhm. te vraiment man yërëm naa bu baax a baax a baax am naa ñeewantal ci ñi nga xamante ne ñooy mbal bi di Céeno di Nguy di mm. lobet mm. jafe-jafe yi ñuy am bu pression amee rek ñoom dutuñu am ndox mm-hmm. kon ñooñu dañoo mérité ñu defaral leen seen forage bopp au moins ñu soulager leen mm-hmm. comme ça lambaay ànd ak yeneen dëkk yi ko féete nee mm. di alimenter forage bi pression bi wàññeeku ku nekk mën a am ndox normalement parce que ndox dafa nekk nécessité fépp mm-hmm. bu ñu jógee ci loolu il faut que ñu am lycée moderne bi ñu la doon wax léegi lycée moderne mooy tax doomu lambaay des à lambaay man su école tëjaa damay jot appel fu ne ku ci nekk sama doom damaa bëgg fu mu nekk sama doom jàppale fu mën a nekk ba dem jàng hmm. mais bu ñu amee lycée moderne bi lise bi naa ma ngi fay fonctionnel mais xale yi duñ sawar hmm. ndax li ñuy rêvé pour gis ko école yi ñu bëgg a jànge des na kon nag ñu tabaxal un lycée moderne ñu téye fa xale yi pour ñu toog foofu jànge fa loolu mooy aar xale yi pour ñu jàng ndax avenir u Lambaye suba dafay reposer wu ci xale yooyu. Mhm. ñoom ñoo war a jàng suba ñu mën téye commune bi ak seen fukki loxo téye ko ci expérience téye ko ci li nga xamante ne mooy capacité développer Lambaye ba mu nekk un Lambaye meilleur suñu jógee aussi ci li nga xamante ne mooy wàllu jàngale bi. dañoo war yeneen dëkk yi nga xamante ne dañoo bokk ci commune bi parce que bëgguma kuy wax Lambaye Lambaye Lambaye Lambaye sa cinquante villages village yooyu noonu nu Lambaye di di am ñoom dañ ko war a am. Mhm. dañoo war a am ay case tout petit. maanaam daa am inégalité. dafa am du du du inégalité sax parce que centre bi su état ñëwee foofu lay commencé mais yow mi nga xam ne yaa bëgg a jël maire bi yaay décentraliser. Mhm. dem au fin fond. Mhm. ba ñeneen yëg ci seen bopp soo demee dëkk bu mel ni Kër Ndiang mi ngi nekk dëkk boo xam ne du dëkk bu rëy mais ñoom dañoo am droit. am accès ci éducation parce que seen doom ay kilomètres yi kilomètres la ñuy def pour jàngi dañuy dem ba sax du ñu ñime ci yoon wi pour jóge ci mhm. dëkk yooy dem jàngi kon xale bu dëkk foofu du jàng mhm. te tout temps a droit à l'éducation mhm. kon foofu mais programme yi nga lim fii nii yëpp daanaka benn du si compétence yu tax dañoo gis ni maire yi par exemple ñoom bu élection locale yi wala sax candidat à la candidature ñoom élection locale yi bu jotee bu ñu demee ci population bi dañuy wax ni bu ma faloo dinaa leen defal lii bu ma faloo dinaa leen defal nii alors que yiñ ci lim yëpp dara du si compétence maire bu fekkee sax xanaa ñu lëngoo si ak état bu Sénégal. waaw boo déggee mën na la maire dafa am. ñaari façon par exemple maire bi nekkul ak état. lii may élumérer nii. même bu fekkee sax maire boo xamante ne nekkul ak état programme yi dafa war a réalisable dafa war a programme yu faisable nga war a indi mhm. mais ci programme yu faisable am na ci yoo xam ne moo gën a nekk loo xamante ne c'est daar daar pour la commune de Lambaye loolu soo ñëwee da nga war a jóg sol sa dàll immédiatement mhm. mu taxaw mhm. loolu nekk ak état rek moo ñu ko mën a may c'est pas pour rien ñu gëm programme président Macky Sall mais Lambaye moo nekk commune boo xam ne mën naa ne du opposition mu fa man bariwul mhm. parce que li ñu soxla moo bëri mhm. li ñu war a def ci dëkk ba moo bëri kon lambaay mën nañu wax feebaru mag la fépp feebaru mag la oppas mag la féppay mit cin bu tàng la buy bax féppay bux buxi mhm. léegi loolu nag dañu soxla président Macky Sall yaakaar bi ñu amoon ci moom ba ñëw ànd ak moom yaakaar bi ñu gisoon ci moom ci programme bi programme boobu la ca làmbaay soxla lañ bëgg mu soqi ko ñëw sottil ñu mhm. loolu lañu soxla euh, au delà ci wàllu programme bi gis nañ acteur politique yi wala sax actrice yow nga yëngu ci wàllu politique euh, fare ci Benno Bokk Yaakaar mën nañ ko waxee noonu ba jëlagoo mairie bi da nga koy yóotu mais laataa nga ko jël yan action nga mëneegun ci commune bi waa man loolu laa gëm man li ma gëm mooy nit ki waroo bàyyi ba soxla maire door a ñëw naan fal leen ma mhm. man pour man travail yu mairie mhm. c'est un processus dëkk bi da koy bëgg mu nekk sa fierté ngay ñëw bu ñu nekkee ci lu metti nga di ko bokk ak ñoom bu ñu nekkee ci lu neex nga di ko bokk ak ñoom soo amee daraat nga ñëw jox leen ko. Mm-hmm. loolu mooy tax nga cultiver ak ñoom ay relation yoo xam ne yu fraternel lay nekk. Mm-hmm. ay dañuy dem ba duñ la jàppee eh, ay affaire de politique mais dañ lay jàppee seen doom dañ lay jàppee seen sœur ndax dañuy xam ne yow lenn rek lañ soxla mënoo am ba joxal kenn dépense. mais yëg-yëg bi ci dëkk bi mm-hmm. ak taxaw bi ngay taxaw dëkk bi ñun action yi ñu doon mëne li ci ëpp social la parce que dañoo gëm ne population bi fu ñu toll dañoo soxla ku leen assister parce que ku wax làmbaay diine ngay njëkk a wax tey boo ñëwoon tey dugg làmbaay jumaa ji ngay njëkk a seen door a xool feneen jumaa ji ñu toll moment boo xamante ne dafay nekk bu tawee ndox mi sax day dugg ci biir mm-hmm. loolu bi ñu ñëwee dañ ne duñ yem ci lancer appel état ci projet réhabilitation yi ñu am ñu ñëw ci à Lambaye mais dañuy commencé ñun waa Lambaye def ci li nga xam ne moom lañ ci war a def mhm. bokku ñëw fekk ñu ci mhm. bi ñu ñëwee dañoo dem jël suñu quinze tonnes ciment jël suñu enveloppe cinq cent mille teg mhm. ñun waa dëkk bi yëpp ñu daje toog waxtaan mën na leen nañ leen waxtaan ñu xool solution mu nekk nag Lambaye ay xale yu jeunes yu am jom yu am engagement bi ñu toogee daje kenn ku dëkk làmbaay doon góor da nga cotiser vingt cinq mille mhm. képp ku doon jigéen danga nga cotiser cinq mille francs mhm. tey jii loolu la ñu defaree jumaa ji ba jumaa ji yemb ba ñu créer ko def ko association tudd ko association ànd defar làmbaay mhm. laa yaa ko jiite non man damay wax ne duma jiite ay association mais képp koo xamante ne doomu làmbaay nga pare pour liggéey làmbaay lépp loo sumb sama ñaq ba keroog ngay pare loolu sumb mas sumb la. Ah, action yi nekk politique max la li tax mënul nekk politique ñun amuñu lu dul. làmbaay politicien nag du def dara ci yàlla naa de. non non parce que man diine bokkul ak politique parce que mën ngaa politique te doo ko defee ci diine parce que diine dafa nekk loo xamante ne nii. politicien koy fës. non yëg-yëg la. xoolal loolu bañ koy def kenn yëgu ko. Mhm. ñun ñoo dem dem ba toll foo xamante ne nii dafa jar nag yenn yenn action yi. Mhm. ñu di ko fësal. parce que mënoo dëkk di def ci suuf. Mhm. mënoo dëkk di def ci kaw mais parfois day laaj nag ngay communiqué ci li ngay def. Mhm. pour nit ñi xam ne yaa ngi ci dara. bi ñu jógee ci loolu li ma njëkk a def mooy man jigéen ñi dama leen di gëm parce que jigéen ñi dañu nekk ay femmes jàmbaar yu mhm. brave soxlawuñu lu dul encadrement su ma la waxee ne la jigéen ñi làmbaay ñi may encadré am na ku nekk ci na la nga wéyal. jigéen ñi nekk làmbaay ay ñu am coom lan ku leen encadré ñu dem. am na ku nekk si buumu jokkoo bi asalaamaaleykum. allo allo. ça va yaa ngi ci jàmm. allo. allo yaa ngi may dégg. waa salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek ba yaa ngi ci jàmm. sant bu baax alhamdulilah. noo tudd ak fay woote. ça va. Mhm. allo. allo maa ngi lay dégg man la noo tudd ak fay woote. Dame Ndiaye dëkk Mexe Lambaay. Mhm, ñoo ngi lay teewlu. waaw ñu ngi leen di jaar yéen ñëpp di leen nuyu. Mhm, jërëjëf. di nuyu Ndeye Marème Sarr. maa ngi lay fay bu baax mon frère. di leen nuyu yéen ñëpp tamit di rafetlu émission bi. waa di ci am contentement trop. Mhm. parce que Ndeye Marieme Sarr comme ni dégg ci waxam rek moom c'est une lionne. Mhm. mooy la lionne de Lambaye. Mhm. te nekk na ku am ambition wax dëgg yàlla. te jeunesse mel noonu lañ soxla ci réew mi a am avancement. déglu naa aussi tamit émission bi ay waxam pertinent pertinent na trop. ba tax na ma ne naa dugg ci émission bi. jërëjëf. Euh, participer ci parce que tamit euh, mu ngi dëkk Lambaye maa ngi dëkk Mexe mais part dañuy partagé nañ lu mm-hmm. Mm-hmm. te gis naa ne comme engagement la comme détermination la. Mm-hmm. te loolu rek mooy li nga xam ne mooy li am solo pour développer sa localité. waa di ko ñaax rek ne ko fi mu teg tànkam foofu la. te tamit nit ñaa ngi gis li muy def. parce que tamit nit ñi moom nañ lay gis. di xam di xam li ngay def te xam ne carrément yow ku bëgg ci nga dëkk nga loolu moo am solo. Mhm. li ci des yëpp daanaka mo am loolu daal mooy lépp solo. Mhm. sëñ bi jërëjëf on se connaît bien. Mhm. merci beaucoup mon frère. xam naa li nekk ci moom. daanaka du jar may def lu bëree bëri comme ni nga ko waxee on se connaît. di ko wax rek ne ko ñi ngi koy yéenee. les plus grandes marches. mu egg fa parce que tamit bëgg-bëggam ak engagement am foo ko natt passé a ko. Mhm. jërëjëf sëñ bi ko bon moom mi ngi noonu. Mhm. déglu nañ projet yi nga xam ne mi ngi koy souligner. Mhm. te loolu rek moo des làmbaay a développé. mu yi na ndànkal mu dem làmbaay. mu nekk ay manquement yoo xam ne daf ñuy causé ay problèmes yu bari. te comme que teg na ci bëtam te tamit nekk na ci xelam. waaw dañuy ñaan yàlla rek mu mottali yéene yi. Mhm. ba li mu namm ci ak intention yu am yàlla mottali ko. Mhm. waaw di ko wax rek nekk kontaan nañ trop vraiment ci émission bi. Mhm. merci yéen aussi ñu ngi leen remercier ci opportunité bi. boo xam ni bu am solo la. jërëjëf sëñ bi baax a baax. merci beaucoup mon frère. allo man la jërëjëf ñu bàyyi la nga daaneel waxtu bi. mu ngi loolu daal laa ne woon naa dugg pour eggee ko ci émission bi. en attendant ñuy suivre le reste. Mhm. ne pas ligne bi. yow kay monopoliser nga ko pare. <laughs> merci moom da bokk parce que souffrance yi mi ngi koy dundandoo ak ñun. <laughs> Ah, jërëjëf sëñ bi daanaka Ndeye Marème waxtu bi ñett nañu ñu benn ñu benn bennal ko rek. Ah, wax nga ci ambition yi wax nga programme bi léegi ci coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. seetlu gi moo di ñu si bëri ñoo bokk coalition bokk parti. ba pare seen gox yi ñoom dañ koy xëccoo yow par exemple sa làmbaay ña nga bokkal parti ba pare bokkal coalition yow base bi moo la investir wala président Macky Sall de moom tànnagul de. waaw mon frère maa ngi lay remercier ci question boobu ñun dañuy wax que ne benn dénominateur commun lañ am muy le président de la république. son mhm. excellence Macky Sall. te discipline de parti. Mhm. am fi ba mu jeex tàkk parce que nous sommes des jeune mhm. di jeunes yoo xamante ne dañoo bokk ci keppaara koo xamante ne muy le coordinateur de la COJER Moussa Sow mhm. Moussa saw nekk un jeune loyal nekk un jeune modèle mhm. nekk jeune boo xam ne ku làng ak moom lu dul loyauté lu dul discipline de parti mhm. doo ci dox politique nag égal ambition politique égale bëgg-bëgg politique égale volonté kon ambition yi nga am ak yéene bi nga am ak li nga war a tabax pour sa dëkk war ngaa taxaw fësal ko te président Macky Sall xam na ne moment bii c'est l'ère de la jeunesse xam na ne moment bi c'est leer des femmes. Mhm. il faut que mu jàppale jeunes yi. Mhm. il faut que mu dooleel jigéen ñi. yow Lambaye ñoo la tànn wala. Lambaye man ñoo ma tànn. Uh-huh. ñoom man ñoo ma wóolu doyloo ma nekk ci sama ginnaaw di ma dooleel. Mhm. te ligne bi xam nga maa ngi la doon laaj avant émission bi ndax dina. non dëgg la nga ne ma ah, mënu mënul nekk. ligne bi buñ ko ibbee par exemple. gis nga dañuy bu ñu xamoon ne mën na nekk. yaakaar naa kon émission bi yëpp waa Lambaye dañ fiy dugg ba duut ñu xam sax lan la ñuy wax. ligne bi buñ ko teeloon euh, ibbi dañuy empêcher. ñu waxtaan ndax yenn poñ yi ñu waroon waxtaanee kon dañ lay wax ñun fi ñu bokk Ndeye Marème dafa nekk euh, nit koo xam ne bi mu jiitee COJER ci commune am à Lambaye. Mhm. je me suis ba dem au niveau départemental. le au niveau départemental ñu am fa suñu ay frères. Mhm. am fa suñu coordonnateur départemental mu jaboote ñu ñun ñëpp. Mhm. am fa ay douze communes yoo xam ne ay leader a fa ñun ñëpp ñu sekk jàmm sekk salaam sekk ay relation yu nice am fa jeunesse bi mhm. ku xam jeunesse xam ko ci fugg beneen laaj bi ku xam jeunesse comme que waxtu bi daanaka jeex na sax euh, mooy gis nañu kuje gi taxawal nañ ay coalition mhm. coalition Yewwi Askan Wi ak euh, beneen coalition bu PDS euh, taxawal ni ki sax bërki dem ca place di souvenir mhm. léegi naka ngeen di janoo ak coalition ya mais ñooñu matuñu ñu xëy waxuma laa ñooñu ñooñu adversaire doo ko xeeb. Mhm. mais terewuñ ñoo nelaw. Mhm. parce que président Macky Sall dafa am billant boo xamante ne def na ko dans toutes les communes du Sénégal. Euh, ña nga xamante élection présidentielle ak euh, locale du benn may ma tuuti dafa am bi du du benn. Mhm. loolu ku nekk ak sa réalité. mais boo demee ci commune. fekk président ba dimbalee leen la fa dara. yow nga ñëw am loo fa def. soo laajee pour ñu jox la day yomb parce que am nga bilan. Mhm. max la ki jërë tiital ki deful dara. Mhm. kooku moo am problème. Mhm. parce que pour man maire bu am bilan li nga koy laajaat mooy. son bilan. jo kooku jërul mu naan candidat na ñu présenté un bilan bu ñu satisfaire nga may ma tuuti nag ma dugg fi nga xamante ni fi laa bokk muy COJER national di remercier sama coordonnateur Moussa Sow mu nekk un jeune boo xamante ne jàmbaar la le futur maire de Labgar. ñu mais Moussa Sow boobu sax daanaka liñ koy joxar bi baaraamu tuuma ci concert bi bëri na waaye waxtu bi njëtt nañ. duñ ko mais mais ndaw ndaw ak ak ak loolu ñoo ànd. Mhm. ndaw ak loolu ñoo ànd ku ku wax ndaw mhm. wax coow ku wax ndaw wax xëccoo mhm. te pré Moussa dafa uuf njabootu président Macky Sall mhm. Moussa dafa ñëw jàppale la jeunesse républicaine man mii di wax ak yow moo ma nommé chargé au ministère des finances ak ñeneen ndaw yoo ne ñi ngi mel ni man nekk au fin fond di liggéeyal le président de la république mu génn leen fexe ba parti bi cër biñ ci moom ñu xam ko kon ñuy lancer un appel au président de la république di ko nañu joxal Moussa Sow nomination boo xamante ne dina àttan ndaw ñëpp parce que tuux yooyu ngay wax ak coow yooyu ngay wax parce que Moussa yoragul poste bu yorul poste am na loo xam ne àttanu ko budget rek la yor te hmm. budget bi mën naa ne mënta satisfaire ñëpp su ko président dooleelee joxal ñu ko poste bi ñu soxla fépp fu jeune nekk ci Sénégal dala fay fekk lépp lu ko jeune sollicité hmm. dala koy defal Moussa Sow moomu ngay wax daanaka liñ koy joxar bi baaraamu tuuma bëri na te sax seen kuréel boobu bëri na ay mbiicoo mbaaloo waxtu bi na xaababal nañ juróomi simili mbiicoo mbaaloo amu fa mbiicoo mbaaloo amu dafa nekk structure boo xam ne c'est structure de jeunesse mhm. mënul ñàkk ay coow mhm. suñu toogoon ne nemm kon président war a wax ci ñun mhm. politique égal ambition jeune égal engouement dañuy xeex dañuy reyante uh-huh. mais suñu dénominateur ku mu président la te saa yu ñu président soxlaa ñoo ngi ci terrain bi musa tëddul nelawul noppalikuwul fu mu toll mi ngi taxaw pour xeex fu mu toll mi ngi défendre les réalisations du président fu mu toll mi ngi vulgariser fu président jëm mi ngi koy topp di ko assister di def le tout ba doon le bouclier bouclier du président on le surnomme le bouclier du ah. président te loolu boo gisee ñu koy woowee parce que saa yoo jógee jëm ci président ci Moussa nga njëkk a yem waaw hmm. yow Sarr rek nga mën a sant ñu bàyyi la nga <laughs> tàggatoo. bu baax moo frère ndax xam naa ne li ñu war a wax yëpp xaju fi li duuf ci nag bi yëpp xajul ci hmm. cin li mais eh, beneen yoon incha allah hmm. su ñu ñëwaatee xañ naa mooy dàq. dama lay remercier d' abord. ci opportunité bi ñu jox di la di remercier aussi rajo bi yëpp di leen ñaanal aussi wax dëgg yàlla lii ngeen di def am na solo di remercier nag koo xam ne aussi ci biir projet national kenn la ci man muy ma sœur mon ami Marème Taban mm. moo ma accompagner sax tey jii tey ci studio bi mm. mu nekk koo xam ne kenn la ci man yàlla mooy boole ay nit yàlla moo ma boole moom mm. ndax foo dem da nga fay fekk ñëpp di remercier ñi nga xamante ne aussi dañoo nekk ay jàmbaar nekk ci derrière le coordonnateur Moussa Sow foo dem ci dans les quarante cinq départements am na gaynde goo xam ne ma ngi fa boofu te ku muy muy Moussa Sow ku muy nooyee mooy la président jërëjëf Ndeye Marème Sarr maa ngi lay sant di la gërëm di sant les amis de Moussa Sow mhm. di sant population Lambaye mhm. ndax man lu ma doon Lambaye la fu ma toog Lambaye la te moom laay tiitaroo man dama naan ku ma bëgg na bëgg Lambaye ku ma mhm. bëgg na gestu Lambaye parce que sans Lambaye man du ma dara di candidate à la mairie de Lambaye naka noonu yor wàllu mission bi ca ministère bu finance ak budget Abdoulaye Daouda Diallo jiite ko mu nekkoon seen émission gox bi dëgmal kuy fare woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi aadama Diallo ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf